ñu gis si Ngoben nag dañ ko fee mës gis ba Ngoben sosoo ba suñ jonni tey mësuñu ko fee gis sëñ Abdou Bara Ngom nekk na fi ba jóge fi lii mosu fee am maam Seyni Ngom nekk fi ba jóge fi lii mosu fee am Baye Modou Ngom nekk fi ba jóge fi lii mosu fee am ñii nekk fi ñu xëy xëy dégg nga maam di tracé suufu si Ngoben si di ko jaay lool kenn mosu koo def ci Ngoben gii waaw mu jëb yor puso bi nag mu réer nag dal na dal na waa Ngoben parce que dëkk bi kenn mosu fee jaay suuf kenn mosu fee def lan loo xamante ni ndax ki nga xamanteni moy mooy mbergaan ba fi ñëwee bëgg suuf bam bañ waxe bam mu waxee waa dëkk ci boy ci dañ ko daggal suufam mu jël suufam ali Ngouille jami mi itam kasaalika ñoom ñi da dañoo ñëw jaar ci suuf nak di def lañuy def commencé da nga am di dagg suuf ci diko ko joxe ma samba yëgul ma demba ba yëgul seedi wala bako ko waxee mu ne yëguma <coughs> ay mir kessa ngay gis ci àll ñu mir ko kolam ki la ko wara a ah, lool nak nag bu bëggee dal waa Ngomeen gi seen tanku tubay lañ ci xar gar gar seen bakkan mbaxana doone benn te xam na ni yoon woon jaar pour régler ko ñu ngi koy defal alerte daal ci nii lii nga xamante ni mooy moomeelu askan wi na ko bàyyi ak ñoom autorité leen nun ay autorité xam nañ fi ñu koy teg xam nañ fa ni jaar ak moom nit ne au-dessus la loi kenn jéggiwul yoon kon nag na jaar ci yoon wi mu war a jaar bu ci ñoom fa leer bu ci ñoom na fi bàyyi seen i alal suufa jaayaan na nga fële na dem daggi ko jow la mu jaay fay ñëw ñu jox ko cent mu mu dellu ñëwaat fi dellu maam jël fi 40 hectares yoo xamante ni bii euh, tàgguwunu yëgunu ci nun bañ koo waxee dañu moom yëgul du nun bor na fa def mu ni dem leen ngeen seetlu ko ndax man def mokk waaw man wóolu ma ti ko waatee ni ni ni man maa ko def maa ko defoon te waxtaanul ak waa dëkk bi xamuñu nu mu demee yaa ngi dégg loolu moo waral sunu daje bi tey tey nag dañoo convoqué bi gendarmerie convoqué convoqué nit nag bu ñëwee di nga ko wax li nga koy doyee ki nu convoqué nangu nangu ñoo wax kan moo ñu convoqué te te ku convoqué nit war nga bu ñëwee war nga ko ni diw moo la convoqué kom dañ ñoo pelante jaar ko ci procureur bu ñëwee ba fi dañ ñoo war a wax kan moo nu pelante ak lan moo tax mu pelante ñu li jàpp ne moo nu pelante mooy maire bi wala ki nga xam ne dañ ñu dañ koo jaay suuf ten doon kooku nun mësuñu koo teg bët xamuñu ko nun taala leen xam mooy sunu maire dégg nga kon bu fekkee ne du moom noonu maa ko def ndax waa ji joxe même 4 millions mu ngi mu ngi mu teg ci taabal bi ñun gisuñu xaalis dégguñu xaalis xamuñu waa ji dégguñu ko gisuñu ko fenn ñaar 40 hectares la ni moom lañ ciy jël 40 hectares autoroute APS bu ñoom bu ñu nee suuf si ñoom ñoo ko moom commune bee ko moom waxuñu ko parce que projet bu njëkk ba dafa yàqu projet ba boobu yàqoo bu fekkoon ne yàquwul du ñëw ni ñu jox ko 100 hectares mu ni da dédommagé waat autoroute APS bi jaar na ci état ko moom te état bu doole ñëpp bu ko neexoon du dédommagé mais état danoo dédommagé bu mu jaar sa tool fay nañ la mu wëlbatikuwaat bëgg a ñëwaat bëgg a jël 40 hectares la ni dama ne ñun xeexunu xuloowunu li ngi yëgal président Macky Sall mi nga xam ne moo nu yili boole yilif ñun ñëpp na wax ci maire maire yi Sénégal yii ñu ngi maire Sénégal yi ñun amuñu lu may suuf si te suuf si jël nañ ko ba mu jeex jël nañ fi 100 hectares autoroute bi ñëw jëlaat fi lu dul jeex yaa ngi dégg moom mu ñëw bëgg fee jëlaat 40 hectares suuf si lan moo fiy def lu fiy anduñu ci tey anduñu ci suba anduñu ci tey anduñu ci suba te président Macky Sall moo wax ni delluwaat leen ci àll bi kenn ku nekk fa nga fa nga jóge woon nga delluwaat nit ñi jóge woon Dakar suñu doom yi étudiants yeeg ñëpp ñu dem ci wax ci dëkk bi delluwaat ci taax yi taax yi rek loolu moo waral tey daje bii dama ni nanu wax ki ñu jaay suuf si ak luñ ko ko jaay ak lan moo tax ñu jaay kooku te yëgaluñ ñu ko lii rek mooy